un plaisir de vous retrouver ami internet du Sénégal 7 salaamaaleykum tarkala macha allah Sénégal 7 nee la mooy émission ak télé bi nga xamante ni li gën a neex ah, ci internet bi lépp loo xamante people la lépp loo information la fii ngeen koy amee donc mu nekk mbégte saa su ne di leen comme tous les mardis et tous les samedis dans votre émission Cas bu bees la meilleure émission people du Sénégal bi nga xamante mooy ramasser lépp invité ci kaay dañ leen koy toppal comme ni ngeen ko bëggee diggante Adji Mass ak ma yaay boo yaa amicole ma am mbégte di leen di retrouver une euh, beneen beneen beneen yoon mais Adji euh, damay door nuyoo bi ci yow ah tey kaa bu bees dafa mel ni tey kaa bu beesu teranga la euh, kaa dafa mel ni kaa bu beesu teralaata la <laughs> mais Adji verre yi chaque jour ak ni ngay dikkee c'est quoi ces lunettes Adji Mass <laughs> c'est moi les stars c'est moi là peut-être C'est moi la nouvelle génération. Allez, d'où <laughs> a laaj. <laughs> Ah, <laughs> eh, where do you from. do bien tu foo jógee. ay du yow it from. Ah. <laughs> aywa nuyu naa la bu baax a baax am plaisir jàkkaarloo ak yow tey beneen yoon ci kaw bees. <laughs> <laughs> agréable. Uh-huh. On t'a déjà annoncé les couleurs d'abord. Uh-huh. Machallah, uh-huh. le trio. Mhm, mhm. xamante ne ñëpp nit ñi xaar mhm. ah di excuser waat encore une fois tout le monde di waxati auzu billahi mina sheytaan rajim waaye bay <laughs> waaye jaajëfalati la bu baax a baax à mon yow ci muñu béyoo bi non ñu yow bi tey dañ koy jagleel madame Ndiaye mën nga ko mënu ko nañu koy jagleel madame Ndiaye rek émission bi <laughs> foo ba pare gis naa dara ngay da cee boole lipp kii lèvre rose. mais lèvre rose pour lan la. la moo tax mu xool la rek jox la lèvre rose. Oh, jox la parfum boo xamante ni góor gu oh, góor gu ma oh, góor gu ko sentir rek. waaye madame Ndiaye. oh. madame Ndiaye. Euh. tubaarikàlla. Mm-hmm. monsieur mm-hmm. li ma wax tubaarikàlla barki dem moo ci nekk. dëgg la ni papa nga. Mm-hmm. lijjanti na ba dëgg. l'homme aux forces trop. Mm-hmm. peu de parole peu de bruit. Mm-hmm. beaucoup de valeur beaucoup d'action. Mm-hmm. xamal ko ko may. personnalité am. dignité am. valeur am. lijjanti bu góor yam ko jigéen yam ko. ndax papa nga comme ni ko waxee dafa lijjanti ba dégg journaliste bi waaye dafa lijjanti ba kooku nag. mooy sunu PDG. le plus jeune. waaye nag madame Ndiaye yaa ko parce que y' a toujours un grand homme y' a toujours une grande femme très posée. macha allah baax lool fonk ñu. kon madame bis bu la terale ñu ñii la teral parce que yaa bis. tey Kaaw bés tey moom lañ ko jagleel. tey Kaaw bés madame Ndiaye ma ko moom. mbirki dem ba may def sama anniversaire weer gi la la tombé loon ma ne danga naan damay dóore. <laughs> kan ba kan ba xam nga ay yat ak ay solo. Uh-huh. macha allah dama ma fara jëlee wéb dama dem ci sama digg koñ bi xàmme ngeen ma ci koñ bi fa laa <laughs> xam nga des fois boo mee xaalis noonu lay def. yàlla sa jàmm yàlla jaay yàlla yàlla ko def fanam. loolu mooy nuyoo boo aji ba tarkalla macha allah sénégalais dañu ko bëgg no stress lay dund et puis ku def feebar ku nekk boo gisee vidéo boo ko seetaanee. sa feebar dafay jeex. Oh, dara safuma macha allah keneen ka sama tànk yi ah. naa la lu bare bare tey noir nga def. Ah. all black laa def. ah oui ñaa sama waa ji nga xamante ne nii dama naan ko daggal rek mu dagg dagg na oh. <laughs> ma naan lan lay xale yi daan jànge xoomalan. man atel ma laaj ñaa xale yi dañoo judd. <laughs> naan inge laaj ñaa ki judd naan in ciseau. in ciseau in coupe in coupe in dagg. in dagg in ñaw in ñaw. in solal in solal. ay ci di nuyu amis téléspectateurs yi ñu seetaan di amaat mbégte ak contentement di jàkkaarloo ngir saa su nekk seen émission Cas bu bees mm. di jaajëfal bu baax a baax a baax am ah, mon frère waaye kenn du ajima sama anti stress yi nga xam ne moom laay wër ah sama team ñëpp ay wër ajima mënu ma koo dugal rek te nit ñi reetaa ñu ba ba ba xam <laughs> docteur Cissé <laughs> bi nekk ci euh, clinique euh, clinique bi nekk Ouest Foire mhm. Mbaye Cissé boobu mag boobu fa tabaar fakal la macha allah. Mhm. mënta muñ aji ci àdduna nee ko est-ce far nekk docteur aji mas léeg di ko woo di ko consulter. <laughs> mu cee ma question nopp yi nee mën nañ ko rétablir daal ndax léegi surési am na. xam nga non xesal bee jeexal sama loxo yi sama nopp yi ak sama tànk yi man du daal 42 laa doon sol. xoolal lool rek. adduna di dem ba 2023 ma sol 38. ah xeesal bi la xeesal bi day delloo tànk. xeesal bi la foo saa sës. delloo na sama noppi delloo na sama loxo yi mel ni batane jaar bu ma sol mu kenn mu sa gis lépp a ngi lank. ñu ko baax xeesal te moo fa ndekete. yaa booy loolu mooy nuyoo bi tey. waa jox émission bi rek madame Ndiaye. waaw tey suñu émission madame ñu ko baax. kenn du moom tamit dañ ne lu ne di ko jeex. Mm-hmm. su mm-hmm. euh, y a mm-hmm. nee neex na ko foo ko fekk day ka foo ko fekk day réew te bu ko neexoon aji mbaggam ndax bu ajoon ay mbaggam ñu toog rek di ko xool naan ko yaa boole ko duñ ci boole benn wax. Mhm. waaye joon ay magam ma def ci rido. waaw. <laughs> fii ku fi ak say mag ñu def ci rido na portaari rido rek lay doon. fii ku fi xogaliku maa nga aj say mag ñu def ci rido. <laughs> non non non xalaatu ko déedéet xalaatu ko dañu leen di gërëm bu baax a baax <laughs> di leen di leen ñaanal yàlla. dama neex <laughs> ñu tàmbali. ah <laughs> yaa ñu tàmbali doo tàmbali. Sénégalais nga xaar kaay ñu war a décortiquer de kaay ñoo bari de ñu tàmbali. <laughs> Massamba dañu koy gërëm bu baax baax moo nekk ci région bi xam nga ni kaaw bees ci fin bi dañ eh, bokk na ci point yi nga xamante ni koy waxtaanee bu ñu ko tënkee ñant la ba ca njëkk mooy yaa awa rasul ak chirurgie bi nga xamante eh, mu ngi lëmbee internet ba ak forme ba donc loolu la nañ ko waxtaanee tey ci kaaw bees dossier bi dox ci diggante Awa Baba Thiam xam ngeen ni kii di Awa Baba dañu ko woolu woon téye ko ba noppi ñu libéré ko ana naka la demee loolu la nañ ko waxtaanee tey ci kaaw bees buñ ci jógee nag dañuy dem Ngor ci li nga xamante ni drame la euh, bu euh, ba la nga loolu euh, leen jaalee a baax nañ ko waxtaanee tey ci kaaw bees waaye aussi Kouthia tamit am na actualité people boo xamante ni loolu le dañu ko waxtaanee mu mel ni que ni daal c'est parti pour être une émission boo xamante ni tey ça va être nest pas Adji mm-hmm. mais Adji dama dugg sànq ci internet internet bi gis yaa aw rasul ak forme ba eh, eh, yaa aw rasul ak eh, chirurgie la xaw ma je sais pas mais en tout cas daal changement am na ci moom je sais pas nag loolu lay nu mu demee noonu bu fekkee rek mën ngeen ko leeral tegal ma vidéo bi wala photo bi <laughs> mën naa ma am boo paree joxal. ma merci <laughs> waaye man tey moom te yaay wax wax ji waxal barikàlla daal li ma la mën a <laughs> xamal mooy. Mhm. yaaw dafa jekk. jongama. jongama macha allah aller Mhm. te benn affaire nag sénégalais yi dañ ko war a bàyyi dañu ciblé yow bu ma ëpp di ko tooñ. Mhm. tey affaire bi dafa ma metti xam nga man en tant que femme kenn du ko laal. je suis comme ça même bu gisee dama naan gisuma. Ah. xam nga lii. commencé nga. commencé yaa nekk nit bi nga xamante ne nii. leen de xamal naa la ko. Mhm. barke Cheikh Abdoul Karim moom rek laa gëm. yaaw amul amul lu nga xamante ni rendre na ma ko wala ma rendre ko ko ba tax na ma war koo solal robo avocat encore une fois mais li ma la mën a xamal mooy mm. gis nga li man berki dé moo ñaay laa dugal sama vidéo ci TikTok ba fàtte takk samay ans lu ma ko man bu ma sañoon mel ni yaawa fàttee takk samay ans bu ma sañoon mel ni yaawa waaye macha allah takkul ah. ans deful dara ah, ko seer la def ko seer démb moo xewoon ko seer mais c'est ça veut dire ni mën nga ko takk nii nga ne lii ko seer la lu ñu gis si si mën nga ko takk nii mais nin lay sans dépense ci sënab bi ne ñu génnee ko du n'importe quoi te maa yaawa jigéen gënu ko jëkk ci réew mi mhm. jigéen gënu ko ci réew mi jigéen gënu koo sonn li nga xamante ne ci ay waajuróom waaye jigéen gënu koo mando yaawa du wax waxu càmm mhm. Mhm. yaa awa du jëw yaa awa du fréquenter n'importe qui du dem fenn man li tax ma gën a bëgg yaawa ma jigéen la ma jigéen nee naa ko euh, siste la ci ki nga xamante ni moo di Binta. Mm. man autant ko connaissais même pas Yaawa. mooy loolu ci Nord Foire bi la dëkk ci Nord Foire bi laa dëkk nuyoon nañ sekkoon wala daje ci ay supermarché genre Auchan nuyoon te ka fooree taal. Mm. mais boobu ba léegi dama gis ni. xoolal lu ndaw lu mu def imagine toi ñu génne ko di wax di n'importe quoi nañ arrêté bàyyi doomu jàmbot yi. Mm-hmm. vraiment parce que jaru ko. parce que ñun jigéen ñi ñun kase ñoo mën a protéger seen toj suñu biir ah. même bu ma ah, gisee dafa am ay jigéen kon ñoo ñooy commentaire. ci ñun jigéen ñi ñoo mën a protéger ñoo mën a protéger suñu biir. Mhm. mooy loolu. Mhm. parce que vraiment moom li muy solo sa façon de faire lépp moom la engagé nan bàyyi li nga xamante ni. Euh, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mhm. man faralu ma ko c'est parce que dama ko fréquenter faralu ma ko c'est parce que dafa ma daf demal dara. mais dama wax en tant que femme ñun jigéen ñi. nan defarante si sunu biir vraiment. loolu mooy yaay mooy loolu parce que su am la. Mhm. mu solo noonu yoonu kenn ne ko ci. Mhm. pour man. Eh, jekk daal def na ko. jekk mu ak a jekk. <laughs> jekk a aller retour. ah du jabaru jàmbur ah yow a jëkkër. aller retour pour nag nga nangu. amagul jëkkër de ah? ah, non amagul ay ah, temps euh, dafa mel noonu laa dégg si da ko doon a takk de. ah man de man leeru ma man moom. <laughs> na leen yaaw bu yaaw bu yaaw bu Sidi Diop doxaanante daal am na mais takk moom wax dëgg yàlla gisuñu ko ndax Sidi ah jël nga risque tey ami kol ah. Sidi taxaw Sidi taxaw avoué ni effectivement yaawa sama gel la woon mais léegi sama jigéen la ok Sidi ko wax dëgg la waaw loolu noonu loolu relation boobu et puis Sidi moo ko wax Sénégal nañu ko Sidi ne carrément yaawa sama gel la woon mais nag mm-hmm. léegi bàyyante nañ sama jigéen la ah, Sidi mënoon na ko takk rek waaw ah yaawa da jigéen ju baax la mm-hmm. torop yàlla yàlla mooma yàlla tiim te nit nit ku nekk yàlla rek ngay waxal mm-hmm. man xam naa ko. Mhm. mu nekk koo xam dama ko naw. Mhm. parce que même bu nee dañoo nekk tournage sax je le dis tout le temps heure bu ñu waxee ci moom. Mhm. parce que la ma xam ci moom laay wax du ma wax ci moom lu ma xamul. ndax léegi dafa gaaw. te amel nit àq dafa yomb. na ngay wax ci nit loo xam ni leeru la wala nga di ko jeté ko ay fleur. du ma jeté kenn fleur. ndax man damaa wóolu sama bopp. ndax gëm naa ni. lu waay baax baax baax baax man Amy Collé Mbaye gënoo maa baax. Mhm. nu waay mënti mel ci àdduna gën naa ni gënoo ma. Mhm. ndax gëneel ci fenn dong la amu ci yàlla suñu borom subhaanahu wa taala. la. mais dañoo bokk di liggéeyandoo plusieurs fois. Mhm. ma gis benn tranquillité ci moom. Ah, waaw mu nekk nit ku tranquille nekk nit koo xam ni ci seetlu gi ma am ci ak àdduna fi mu toll nii. yaaw volewul déedéet. yaaw tuxul. yaaw naanul. yaawa nekkul ci lu yoonam nekkul. Mm-hmm. xëy na nag buñ koy tudd parce que dafa nekk ci benn milieu. Mm-hmm. muy milieu showbiz. tey showbiz tey showbiz bi mu nekk. moom mm-hmm. mënoo ne waykat la. mënoo ne théâtre kat mën nañ ko ko wax parce que joué na fa ay. Eh, pièces mën nañ ko boole ci lowu ah, influenceur lu waay def bëgg mu génn ko ci boole. merci beaucoup loolu yàlla moo ko ko jagleel. kon mënta bañ tey doomu aadama yi di wax ci moom. dëgg la rawatina mu def lugam bu bees. ñu filmer ko dugal ko ci internet bi. Mhm. internet bi nag lu ñu fa sànni ñëpp ko moom. Mhm. boo bañee ñu wax la dara. Mhm. bul dugal sa bopp ci internet parce que internet boo ci xasee ba dugg rek amatoo koy retenir. bu ma wax lii wala bu ma wax lii. ña lay saaga ndey ci internet bi sax yow yaa leen may luñ la saaga ndax yaa dugal sa bopp. wala soit journaliste yi dugal la te journaliste yi bañ lay dugal yow yaa def sa propre gré buñ la dugal la daf forcé wuñ la pour dugal la. donc kon mënta bañ coow li mënta bañ wax li. wax ji ak coow li. mook milieu bi ñoo ànd. ah oui ciy nekk dañ lay wax lu baax tey suba dañ lay wax lu bon. Mhm. parce que milieu bi moo bindoo noonu. Ah ki lay wax lu baax tey suba moo lay wax lu bon ka lay wax lu bon tey suba moo lay wax lu baax. Mhm. li mu def nag chirurgie la corsaire la aw ma ci lu ma leer. Mhm. parce que tiimuma ko summi yaramam ba war a mën a xam la ca biir. mais corsaire la gën a lu rôle. ah comme laa wax léegi de. parce que corsaire du tey. corsaire boo doon fekk da nga doon seetaan euh, National Geographic mhm. seen documentaire yi ñu daan def am na ci ay daam yoo xam ne dañ ko doon def ba finalement dañuy am benn silhouette boo xam ne buñ taxawee nii la ñuy def da ngay am buste droite boo ko takkee waaye métti na benn xeetu métti boo xam ne man dara jaralu ma ko non mais metti na parce que dañuy xëcc comme genre lacet lay doon laase lacet bi man su ma taxawee nii sol corsaire bi mhm. corsaire bi day wàcc ba fii ci suuf léegi lacet bi ci ginnaaw lay nekk dañ koy xëcc d'accord di xëcc di xëcc di xëcc di xëcc di xëcc ba nit ki ne nii ne jot. loolu métti na léegi boo tax da may rëbboo ko <laughs> nii ngay def naan nii parce que tellement. ni muy sewalee sa ndigg li réyal sa fii ah, réyal sa fii forme yi. yoo xam ne boo ko solee sax day téye day téye sa form mhm. ay slip la. bu ko defee nit ñi bu ñu xamul dañ naan diw de est-ce que du dafa yokk fekk yokkul silib la silib bee koy aj téye ko mhm. da koy naj léegi bu ko najee sa forme daanaan naan nii aju d'accord léegi ñu comprendre bu ñu xamoon dañ naan diw dafa sudis wala diw dafa yokk te tey nag ku mu neex sax yokk wax dëgg yàlla <laughs> kan moom nekk nit ku nekk yaa moom sa bopp nu la neex def nit ku nekk lu la neex def forme concert bi c'est très joli mais yaa aw forme am naturelle sax moo dàq macha allah man moo ma dàqal man ci ci ci ci style bi nga xam ne moom lañ ko gisee nii tout récemment bien vrai que c'est très joli parce jigéen bu nekk mhm. boo sañoon am ndigg lu sew ruuj saytaat wër la waaw moom lañ bëgg ndigg lu sew ruuj wër la ku bëgg a cerise cerise baa ngoog say conséquences yow nangu yaa koy paye say douleur yow dong yaa koy dund ajimaase ngi nii ne de de de de cerise bi <laughs> pour dindi ji pour dindi ji marakiis yi moom moom moom xam naa ne dinaa ko seeti de <laughs> benn yoon laa fay dem ne aji ba nga wér ak jàmm incha allah kàttanu yàlla ak mbaaxam kon aduna dafa nekk loo xamante ni nii mhm. choix doomu aadama daal choix am la mhm. te nit ku nekk sa choix tu es libre de le faire ah boo ko defee yow la concerné concerné wul ma sàmm ah concerné wul ma dem lan ngeen di tontu sénégalais yi wax que ni euh, dafa fayoon est-ce nekkul daf ko def lii nii pour euh, amaat coow amaat d'autant plus c'est une femme d'affaires aussi parce yow nit koo ko focus. Mhm. ci li nga xamante ne moo di ci ay liggéeyam. Mhm. ñu gis tout récemment muy bi boutique am. Mhm. nekk ci ay ci ay projet am nekk ci liggéeyam. kooku nan lay fayee saa bu yëngal jotee mu génn yëngal. bu publicité yi mairie jotee nit ñi jox ko mu génn def ay pub yu viral. ku ci nekk di ci gis sa bañ na ko ba boo bëggee def loo xamante ni dafa nekk aux sax da ngay dem cliquer li nga xamante ni moo di ci page am bi. luy fay nañ tuddee fay non non non non non non non utul mun mun ta wut buzz mm. mm. yaawa li mu am buzz am na ko ba pare bu dee buzz la sax garaawul wax dëgg yàlla mm-hmm. franchement parlant ndax ku nekk ak sa façon bi ngay wutee sa buzz ah oui mën nga jékki-jékki parce que tey milieu bi dafa nekk milieu boo xamante bu demee ñoom ki ñu gis rek mm-hmm. la ñu gis ku ñu gisul gisuñu waaw parce que c'est un milieu boo xam ne nit ko du star mais télé bi mooy star bi ah oui ah, man je le dis ak internet bi mm-hmm. nit ki du yaay star bi de télé bi ak internet mooy star parce que buñ demee ba gisatuñ la dañ lay xaw a fàtte waale ndax nit ki ki gis rek kala xelam di dem ah mais soo créé sa buzz boo xam day tax nit gisaat la mhm. pour nga mën ci amaat say revenu mais c'est bien dara newu ci mais y a rien tout y a rien mal tey bu mhm. fekkente ni moom moo ko

presse muy chirurgie bi nga xamante ni corsaire comme yi nga xamante am na à la suite de la publication de la vidéo de Ya Awa Rassoul en tout cas li ñuy retenir ci moom mooy que ni euh, c'est une femme battante ah liggéeykat la donc dañu koy encourager dans l'entrepreneuriat féminin parce que comme sama yaay ni mu koy defee comme aji ni mu koy defee bari ay Sénégal ay jigéen yoo xamante ci lu ñu mën a nekk dañ cay boole di daan doole moo xam ci commerce <laughs> defal droite ndeyjoor ne ñëkk a kii nuyoo. <laughs> dañ ko ko koo sant. dañ dem dañuy dem dañuy dem palais de justice ndax dem dañu xëy euh, dañu jékki-jékki gis ci internet bi ki nga xamante ni moom mooy Awa Baba Thiam arrêté déféré ñu jékki gis libéré euh, sur convocation après aussi ñu gis ay site people yu bari bind ci euh, ci dossier bi nga xamante ni doxoon na ci diggante moom ak ki nga xamante ni moom mooy Sala Sow donc am aussi ay question yu bari yoo xamante ni Sénégalais yi aussi ñu ngi koy posé ou pas li nga xamante ni am na ci déjà ci audio yi recruter yi ak euh, kan moo ko jox ay influenceur ñu tasaare ko ci internet bi bu ñu ko toppee ñu ne moom moo ko génnee génne audio yi ba pare dem porte de Salo saw